baaxee su gënee kuul ñu dem ñu déglu suñu benn sœur boo xam ne moom Sierra woon la dëkk kii Freetonienne la Freetown la dëkk Sierra woon la dëkk waaye instant bi mu ngi biir Gambia mi ngi tudd Cecilia di koo xamante ni dafa am ay conseils yu muy joxe am lu ko ci leer nañ ko déglu bu baax déglu ko ak xel après ñu ñëw ma jox leen élément wu koo xamante ni moom moo siy dund nekk si biir xam lépp am ci ay regret te buggul benn xale jaar fu mu jaar muy ku baax di suñu benn bureau bu dëkk Gambia xam ne Gambia mooy Sénégal mu jàpp bu baax nag ci émission bi ak réalisation bi ak naka la ñuy def ba defar ko normal ba mën a conscientiser suñ kii léegi balaa ñuy dem ci Gambien bi mu expliquer ñu nañ déglu kii di Cécilia kamara su baaxee ñu dem di ko jaay suñ yuut si fii nii Um, ñoom tam bokk nañ si lool so dama waxoon ne foog um, ma ñëw waxal nit ñi because sometimes daf dee am lu dee xew si dëkk bi te kenn du dee wax affaire yi yooyu noonu so um, balaa maa continuer di wax affaire yi couche bi ma introduce ma boppa di leen yëgal ne man maa tudda Cecilia Camara man Freetown laa jógee man Freetonian laa bu dëkk Gambia fii nii understand ngeen waaye daal dama gis ne dafa am luy jógee Freetown ñu ko indi fii nii si dëkk bi di ko jaay youths yi ñuy ko ah, foog naa dañ ko dee tux ñuy ko tux di leen rëy di leen sonal di tax ñuy duga si yoo xam ne waruñu see duga man daal lu ma bëggoon a wax fii nii Gambia moo nekk ne man su ma daan wax affaire yi Gambia dinaa di mun a wax ne Gambia nekk na réew boo xam ne jaama rek lañ xam jaama lañ xam ba pare affaire yi crime daal amul fii fii nii mun ngaa téye sa xaalis sax di si diggi guddi kenn du la sonal kenn du la xatal kenn du ñëw sa néeg sonal la si sa diggi nelaw di la ee pour sàcca sa bagaas ak yooyu noonu bot léegi affaire bi dafa wócceeku wécceeku tey xam naa ne li li tax yii nii di xew si dëkk bii nii moo nekk bagaas yu ñoo indi fii nii di jaay suñu youth yi ñuy koo jël xam nga parce que soo jëlee loo xam ne def laa intoxicate def laa dugal si loo xam ne danga koo def te teyuloo ko doo di ànd ak sa xel parce que couche bi loolu la dee def soo ko tuuxee doo di xam sa boppa doo di xam fan nga nekk mun ngaa taxaw nii sax di nelaw fekk yaa ngi taxaw di nelaw si loo xam ne daal dangeen naa jël seen xaalis di ko jëndee man na ma dee wane loo xam ne dafa addictif nekkut lu wa lu nit war a bokka loo addict waruloo see bokka parce que kush nekk na loo xam ne soo ko jëlee jëndee am na ñu ko dee jënd si booy si di ko tux doo mun a lekka doo mun a nekk si dara soo foo nekk sa doo xam sa boppa dangaa taxaw rek di nelaw ba pare danga dee liyu dégg naa doo dee sangu def la dee jox góom gaañu soo amee gaañu bu ndaw te nga nekk koo xam ne danga dee jël couche du dee musa wér gaañu bi daal noonu laay nekk di yokku muy xeeñ sax yi di si génna yooyu yëpp gis nañ ko si couche su fekkee waxuñ leen ko parce que xam naa ne ñu leen ko dee jaay duñ leen dee wax after effects yi fu mu nekk nii yéen a ngi koo stade soreengu leen si su xamaangu leen lan la couche dee def looloo tax ma ne xar ma ñëwtee ma yëgal leen man Freetonien laa maa ngi jóge Freetown January 2024 bii nii January bu passé nii maa ngi woon Freetown gis naa lan la couche dee def nit ñi su looloo tax ma ne xaram ma ñëw di leen yëgal ba pare xaw ma nag wax nañ leen ne couche dañ ko dee mun a jaxase ak yaxi niw su comme nit koo xam ku doon dundam mu gaañu mu dee ñu jël ko dem suul ko mun nañ dem suuli nit ki oo jël yaxam yi ba pare moom la gay dee grind ñu jaxase ak couche bi jaxase ko ak couche bi ñoom di leen ko jaay ngeen di ko tur xam nga loolu su eggee si sa bopp bi def laa confuse léegi dëkk bi dafa bari dof bi nga xam ne foo dox si dëkk bi nga gis dof nit ñi di dox nii xamuñ sax si luñ nekk lii yëpp li ko waral moo nekk drogue yi nekk di ñëw si dëkk bi daw na yaram lool daw na yaram parce que xam naa ne benn yaay du jur doomam ba pare amee ko ba mag mu war a ñëw di ko toppatoo mu intoon gis ko muy dox si mbedd bi dof du sangu tilim di liyu di dox si mbedd bi fu ko nelaw fekk daal foofu la moo tëdda di nelaw yeneen dafaa taxaw sax mu naam dafaa am pour rot mais bi yeneen nga am gaañu si parce soo soo nekkee di dox ngay nelaw nga daanu sa bopp bi fan na moo dal doo xam fu sa boppa bi dal nga gaañ gaañu fa ba pare gaañu boobu noonu dégg naa du dee wér du dee wér because of couche bi nga bi nekk si sa système bi ndax loolu war nañu parce que man lu ma wax moo nekk ne foog naa su ma amee àndandoor ma am ku ma àndal su ma xarit oo su ma àndi jaama daal yow soo ma introduce dara naa gis. effect bu loolu noonu li nga ma bëgg a introduce ma gis effect bi si yow ma gis ne daal am na njëriñ honesta nga indil na ma progress dinaa si dugga soo ma waxee ne ma ah xaw ma xaw ma nag yëg nga ne léegi sorance dafa cher soo ko jëndee si deex bi nga indi ko fii di ko jaay di nga si am profit bu bari mun see dimbale sa boppam dimbale sa waajur boobu soo ma ko waxee foog naa dinaa si mun a dugga parce que xam naa ne su ma duggee si business boo ma introduce noonu dina ma dimbale ma mun a toppatoo suma waajur dinaa si dugga parce que fan naa soo ma introduce loo xam ne dafa progressive dinaa si dugga waaye yow soo ñëwee ma gis la yaa ngi raaga yaa ngi tilim yaa ngi bon am loo fooy dëkka am loo looy lekka am liggéey ba pare nga ñëw ne ma man de si lii laa nekka doo si dugga dinaa la laajte yow ndax yow danga ma bugga parce ku la bugga def laa dugal si loo xam ne def laa yóbbu si kanam waaye si koo xam ne soo ko gisee moom laay fam dara baaxut si mu ñëw di la wax ne kaay nga kaay ma dugal la si lu si lu ma nekka fon naa man war naa mun a am xel boobu ne lii nii su ma si duggee du ma njëriñ def maa yaaxal soo yéen fritoniens si dañoo ñëw fii ñu indil leen loo xam ne daf baaxut ñoom gis nañ naka lañ nekk di rey seen waajur yi ak seen mbokk yi ah, ah, dëkk ba ñu indi ko fii ni introduce leen ko yéen tam ngeen nekk di si jël di si dundee ndax loolu war nañu yow ku nekk ak sa five senses man dinaa toog nit ñoo ne ma tuuxal si eh, mosal si lii maa si koo def maa see duga loo xam ne man xam naa ne def maa ñëw yaaxal maa see duga xaw ma nag wax nañ leen ne ñetti fan si gannaaw dañ def mass beryel pour ñuy gaañu si couche bi nii. comme ñuy dee si couche bii Freetown dañ am because ñeene yi dañ dee génn seen kër yi su kenn du dee xam seen waajur yi duñ dee xam fan lañ nekkat ñu nekkat si mbeeda bi am na ñoo xam ne comme kuwaare yi dee tuur mbalit foofu la gaay dee dëkk dëkka yow couche nii la def doo mun a dëkka sa si fu set bugguloo dara lu set yow lu tilim rek ngay bugga lu bon rek ngay buggal sa boppa so ñoom ñoo dëkka si kuwaare yi nii so foofu lañ dee dëkka ba dee nag xam nga suñ deeyee government bi du dee xam seen waajur pour ñoom ñu yóbbu leen si seen waajur yi ñu suul leen su dañ leen dee jël yóbbu leen si mortuaire yi after some time suñ dekkee si mortuaire yi bébé space lañ soxla pour ñoo xam ne am nañ ay famille ñuy dee ñu war leen a yóbbu si mortuaire bi denc leen so duñ suñ amutee space in the end government bi ñu dee def dem gas pax bu mag bu rëy jël leen ñoom ñëpp dem dugal leen si pax boobu noonu suul leen maas burial moom lañ dee wax mass burial loolu am nañ ko about three days ago suul am ah, ah, ah, bi di rëy. su léegi ñoom ñu indi ko fii nii yéen ngeen ndeka fii nii ànd ak gaay di ko tux ndax loolu war nañu fooguma ne loolu war nañu de ba pare ñun tamit ñun waajur yi like parents yi yow soo gisee sa doom door na di dox am steps yoo xam ne musuloo ko bàyyi xel muy doxe noonu nga jóg si nga jóg si am nañ fii ay drug squad waaye sutura bi moo fi uppa bi nga xam ne sa doom dafa def loo xam ne sax warut waaye bi ko sof yan koo sutura bugguloo keneen ak keneen sa dëkkandoor yi xam ne sa doom bi si lii la nekk nga ko sutura foofu la moo jógee def ko si sa kër mais bi boole si rakkaam yi op op familiem mu jógee fa dem si dëkkandoor bi su fekkee am na booy bu fa dëkk tamit mu introduce ko si noonu la affaire bi day spreadé ñëpp ñu ko noppee di sutura di sutura suñu waajur di sutura suñu xale yi suñ suñ suñ njaboot bi muy spread di spread. ba pare di yëgal am force si responsible si drogue squat si nii ñu gën a bàyyi suñu xel suñ génnee jàpp xale yi ñu xam ne ñu war a def ñu def ko ñu bàyyi tamit suñ siyee nit su la mayee benn hundred dalasis rek nga bàyyi ko mu dem mu dugaat si biddika bi di gën a yaaxu di gën a introduce nit ñi ba pare di gën a ànd ak ñu bon yi di dem di daaji këri jàmbur yi di fa sàcca si loo xam ne nit ki liggéey na laay fam yépp def ko si këram pour confortam ñoom bugg ñoo liggéey bugg jël couche rek tax na ñu dem sàcca kooku noonu sonal ko suñ ko munee gaañ sax pour jot si alelam dinañ ko def dinañ ko def pour rek jot si couche bi parce que dégg na loo xam ne la soo ko staté mënuloo ko bàyyi soo du mun a liggéey pour am ko lu la ne rey nit sa jaral na la pour nga am njëgi couche man daal lii laa ñu woon tey pour am yëgal askan yi Gambie fii nii am suma mbokk yi di seetaan ne nañ jóg si affaire yi couche bi nañ bañ su la ni buggee introduire loo xam ne. du la njëriñu nga ne ko balal ma te soo ko munee boole ñu jàpp ko ñu génne ko si mbedda bi nga boole ko thank you merci beaucoup merci ñun ñëpp ñoo ko déggandoo Cecilia di ko sant di ko gërëm xaw ma ndax mu ñuy seetaan ou pas mais en tout cas di ko sant di ko gërëm di ko wax ne soldaar la moom soldaaru Freetown la soldaaru bi la soldaaru Africa bi yëpp la ah moom ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm boo leen dégloo bu baax dégg ngeen lu mu wax euh, mooy li nga xamante ni moom laa doon leeral mooy amputation yi ñu dégg ne couche bi day indi ay amputation lii indi amputation yi mooy soo xasee ba koy use ba mu dugg ci sa cellule yi soo xasee ba am góom xam nga nag dina am ñu koy use naan waaye ñu ngi koy use daluñu mais boo xasee ba mu addict ci yow soo xasee ba am góom du gaaw a wér comme ñi am jabet yàlla na leen yàlla may wér ñoom ñëpp ñi am jabet bokkut ak lii nag mais comme genre damay jël exemple si jabet rek soo demee ba mu egg ci yenn stade